salaamaaleykum cheikh internautes yi ñuy seetaan ñu ngi nuyu kenn ku nekk sa tur sa sant ñu ngi ànd ak yéen nag si seen émission bu bees tàq bu amul fenn bu tudd mode style de vie mode style de vie nag bàyyiwul kenn yow mi nga xamante ne yow yaay salon de couture wala yow mi yor salon de coiffure wala yow mi nga xam ne yow yaay jaay tissu bàyyiwuñu cordonnier bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne mode laal na la rek mode style de vie dina ñëw ànd ak nag site bu bees tàq bu xew ci jamono dama naan moom dafa mujjee judd waaye mu ngi lëmbee na boobu site ban la mooy Pikine Info mode style de vie dina ñëw fi nga xamante ni ni moo di sa place poser la ay questions commencé ko yow suba ba ngoon duñu baye dara suñu numéro téléphone nak mu ngi non ci bar écran bi dang koy lire bo ñu wowe dinañ ñëw ànd ak yow ndax man néna man mod sama yëpp la bokuma ko kenn mais nak yow mi nga xamantene ne yow ya tok sa salle di ma seetaan wala nga tok sa bir kër di ma seetaan damay jël mod style de vie bokk ak yow ñu nak tok suñu site bi xew ci jamono moy Pikine Info Pikine Info mom moy site bi nga xamantene ne dafa mujjé juddu njëkk baax ba pare di lëmbe Sénégal kon sama gañ mod style de vie ak pikin Info ñu ngi ñew dal sen kaw